باسم الإله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائوة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان ذلك عند ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان المطرود الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة wassalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin wa ala alihi wa saxaabatihi al tayyibin al tahirin subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta samiul aliim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ba ñu santee yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan salaatu salaam boo xam ne gàcceel na waa meew ceebu lan yàlla bu mu dañ di dotte ko ci sayid lawalina wal axirin di muhammad tabaarakallaahu ñu daje fii tey ngir jël bind bind boo xam ne alquran du dañ dina ko fàttali buñ fàtte ne yonent bi yàlla daf ko ne woon ku mën a doon ci ñii ma lay nett li muy yonent yi day nett li wuñ la ko lul nga dëgëri ci rek ngir nga jële ci ñoom leçon kon ñu daje fii tey am lu ñu joxati tuuti aslëf ci dundu maam Cheikh Anta ngir bëgg koo baaxee jàmm ñi tey insha allahu taala lii lépp dafa am lu may tegtal di nuyu di nuyu kilifa yi fi teew ak daraja yi ñu àndal di nuyu taalibe yi ak Pastef bi ñu àndal waaye di nuyu soxna yi ndax ñoom it mënuñ cee ñàkk ndax man damay faral di wax ne ndaje mu ma mu ñuy woote su ma ca gisul jigéen ñi sax du ma ca bokk man ndax jigéen ñi moom loo luñ bokkul lu ne xam ne du dox kon ndax boo demee daayira ñoo ci man nga dem ci màggal yi noonu ah ba ci école yi sax kon yal na yàlla taxaw góor ñi waaye yal na yàlla taxaw jigéen ñi ñu andi leen fi tuuti comme ni ma leen ko waxe ab jukki jukki boo xam ne dafa jëm ci maam Cheikh Anta di Cheikh Sidi El mu tegu nag ci mbindum Cheikhul Khadim am ci loo xam ne bi ko Cheikhul Khadim bindee ba noppi sëriñ Moussa Ka daf ko way kon ngeen xam ne waxtaan wi du lu ñu foraatu waaye dañ koo teg fu leer lii lépp day tegtal li yàlla naan fazkuruni azkurkum washkuru li wala fu na ngeen ma fàttaliku man yàlla ci pays ma fàttaliku leen ci pays bu gën bu ngeen ma fàttaliku ndax umpale leen ne sunu borom subhanahu wa taala ah du nax kenn te ku def dara am dara ku deful dara du am dara ndax bayre du lu ñuy sangoo lu ñu def la képp koo xam ne def nga lu ñu lay fàttalikoo des na la fàttaliku loolu moo tax moo waral bés bi tey lii nag di ay buntu ci xam-xam yoo xam ne benn bu ci ne ma ne sa ja defaru àdduna nga laaxira ci li nga xam ne moo moo band ci maam Cheikh Anta te xam ngeen ne xam-xam dafa yaatu am na lu ma leen ci waxoon xam-xam liñ ci bind liñ ci bind tu ko te liñ ci bind liñ ci indi fi nga ne liñ ci indi fi nga liñ ci indi fi nga ne li nga ci jàng liñ ci jàngutu ko te liñ ci jàng liñ ci jëfi liñ ci jëfiwutu ko te liñ ci jëfe sax liñ ci nangu liñ ci nangu ko waaye fexeel ba li fi saxaaba yi rawe ak ak murit yi njëkk a topp Cheikhul Khadim ñi ngi rawe ci lépp luñ dégg daañu ko jëfe ba mu jeex tàkk kon mu mel ni boo koy seet képp ku jëm ci yàlla yaar moom fokk day am ci yow mooy dangay summeeku ci lépp loo xam ne naka lu noonu la waaye danga nga takkaay loolu mënu cee ñàkk il faut nga takkaay ah takkaayu gi nag yaar yooyu ci ngay mën a nekk dëgg-dëgg taalibe te ab taalibe du dara lu mooy nangu nangu nangul yàlla waaye mooy nangul waaye yàlla ab taalibe mooy koo xam ne daf ne bëri fas yéenee teg tànkam fa taxoon yàlla sàkk waaye mooy koo xam ne tamit dafa jëfandikoo farata ak sunna ba noppi woyof toy loolu ku koy def loo defal yàlla mu yëg ko kon yoon woowu mooy yoonu jaayante foofu la sëñ ma yor a faal tegoon tànkam digganteem ak maam Cheikh waaye foofu la maam Cheikh Anta tegoon tànkam diggante diggante ak Cheikhul Khadim kon muy lu mat a bàyyi xel ñu fas yéene nag waxtaan waxtaan wi di ñaan yàlla musaluñu ci gaafa waxtaan mooy waxtaan ba noppi ku dem ku génn ne ah sëñ ba de wala sëñ Balla la mu doon wax ca baas bu am na solo nga xam ne am ñoo ko rek lañ ci am bu noppee dem dem ci seen yitte kon yàlla nu yàlla defal ak dégg ak topp kon ni ñu leen leerale ak talu nañ seet ba xam jamono jii ah, la woon te mag ña ànde woon noona saxaaba ya ànde woon noona yonent bi sallallahu alayhi wa ndax mooy dox ba tey déedéet dangay gis ne dañu am ñoo xam ne tudd nañ seen boppi talu bi te fekk na seen seen xol jox na yàlla ginnaaw bu yàq loolu dafay am loolu moo andi façon njëbbalu yu bari yoo xamante ni bii mën nga ci lim yu bari te yenn benn bu ci ne bokkut ak la xewoon bu njëkk ndax bu njëkk jébbalu ngir yàlla rek moo xewoon yéefar yi sax bu ñu leen ne woon ashhadu an laa ilaaha illa wa anna muhammadan rasulullah xamal ne wax nañ dëgg bu njëkkit ku la ne aslamtu nafsi xamal ne wax na dëgg waaye buy seetee jamono ji danga gis ne njébbal yi sax dafa bari façon njébbalu ci nit ngir mën na maa jàppale wala jàppale ci jébbalu ci nit ngir ah bu ma amee jafe-jafe mu mu jàppale ma te dinaa la xamal ni ab taalibe lépp lum jébbaloo ci sëriñ lu dul yàlla kese xamal ne moom day perte parce que mënoo fexe ba sant sant suñ bëpp mënoo fexe ba bàyyam di sa bàyyi moo mënoo fexe ba lam moom nga moom ko kon da ngay jébbal rek ngir yàlla loolu moo taxan sañ ma yoro faal jébbalu ci sëñ waaye loolu moo indi woon sëñ gaawan ci sëriñ Tuubaa loolu moo indi résultat yii li alxuraan naan fàttaliku leen ma ñoom dañ leen a fàttaliku dañoo fàttaliku woon yàlla moo tax yu ñu leen fàttaliku kon saa su ne àddina moom mooy firi alxuraan kon yooyu yu mat a bàyyi xel la ndax alxuraan dafa wax ne ittaqullaha wabtaxoo ilayhi alwasilata na ngeen ragal waxut ittaqullaha wabtaxoo ilayhi wasail waaye ittaqullaha wabtaxoo ilayhi alwasilata ay alwasilata ilayhi loolu mooy lan mooy nit bu bëggee àgg ci yàlla wala mu am ca la yàlla yor fokk rek day am kilifa lu ko moy daa bëgg a dem waaye doo am te boo seetee jamono ji ñu bari li leen tënk mooy bari ay kilifa te gis ngeen ñàkk kilifa ni mu bone noonu la bari kilifa bone ndax mënoo fexe fexe fexe ba ñépp gërëm la loolu nag conséquence bi ni mu amee da ngay gis ko ci jamono ji dangay gis ñoo xamante ni bii dañuy génn dañuy jóge fii di tukki ci misaal mën naa am seen baay moo jaay aw fas seen yaay jaay seen patti jaaro ñu paasal la nga dem nga wàññee ko dem ci réew fekk fa ku ñuy wax jëwriñ koo xam ne mosoo koo dégg mosoo koo gis te mën naa am kooko jaar na Côte d'Ivoire fu ne fu ne jaar na fa bar addunaam rate mu ne la ñëwal nag ñu liggéeyal sëñ bi fekk moom la bëgg ko liggéeyal bu ko defee mu di la nax rek te loolu lépp biri bari kilifaa koy waral moo tax damay faral di wax ne gone mag mu xamul la mu bëgg ak gone gu noppiwu ci moom kooku warut a génn ndax bu génnee rek lu koy déterminer dafa yomb moo tax nit na mat sëkk rek la ma doon te jàpp ci kilifaam waaw moo tax Serigne Touba day wax ne wa man tawassala bi wasitatin wasal waaye wa man tawassala bi ak si fasal koo xam ne jàpp nga ci ku jëm ci yàlla daa àgg ci yàlla ku jàpp ci ku jëm ci mbooy gi rek mu ñëpp mu àggal ci mbooy gi rek loolu moo àgg ci dem ba ci yu baree bare bari yoo xam ne dañ ko daan def te yàlla rek tax màggal yi nga xam ne tey màggal gii tey mooy ndey màggal yi dem na ba ay màggal yi sosu ci yoo xamante yu ci baree bari boo ko seetee yàlla génn na ci bu yàgg ndax fi mu ne màggal gu ñu woote xamal ne ñaari kuréel rek a fay moo ñoo ñoo fay daje ñaari kuréel bu ñu sëñ bi woote na ñaari kuréel la fay daje kuréel bi nga xamante ne bii ñoom dañoo wuy si sëñ bi ak kuréel bi nga xam ne ñoom nag wi lañ wuy si mooy ndaw ko nday ndax xam nga noo leen di xàmmee buñ nee sëñ bi nee na na ñëpp dem ca baas ba mbooleem koo koo gis si baas bi xamal ne sëñ bi ko sëñ bi ko sëñ ko tax a waaye ndaw ko ndaay ñoom ñi nga xam ne nag wi leen nag wi leen wuyu si ñoom ñoo ngi ci sëñ bi dama ñaan dama ñaan gi dab ko defee loolu lépp ab ab laytaay la ab laytaay la ci lii may bëgg a wax ngir nga xam ne kilifa mënta ñàkk ndax xorondoom yi sax xam nañu kilifa ndax alxuraan moo nu ko nett bi nga xam ne fa tabaarakallaahu Seydina Souleymane génn ànd ak gàngoor gi mel na magam xorondoom daa génn ne yaa ayyuhan namlu udxuluu masaakinakum waay ah Souleymane kat a ngi nii di ñëw te ku moytuwul dana la nappaaje bu ba moytuwul doo doo dellu ci kër ga kon loolu day firndeel ne ba tey kilifa mënta ñàkk te genn rek lay doon moo tax ulamaawul xaqiiqa dañoo wax ne. du aay koo dégg ci moom lu baax nga dem ci moom ngir barkeelu ci moom waaye nag boo bëggee ku la defar moom yamal ci kenn comme ni ko Cheikh ma Cheikh Sidil Mokhtar defoon diggante mu Cheikhul Khadim loolu boo ko seetee du hasard ndax Seydina Omar ibnul Xattaab yonent bi sa alayhi sa sallam ñëw na ci moom benn bis fekk muy jàng aslëf ci tawraat wala liñ ji yonent ñëw fekk ku mu toog di ko jàng yonent bi ne ko Omar jàngal alxuraan mooy sëb téere ndax na la wóor ne linjiil mi ñu wàcce woon ci walla tawraat mi ñu wàcce woon ci Moussa bu jamonoonte woon ak man moom Moussa loolu def lu dul gëmm gëmm rekk a koy amal njariñ loolu mu mel ni li maam Cheikh defoon keroog ba nga xamante ni bii la dajeek Cheikhul Khadim ca Gabon ndax xam nga ak dikkam Gabon moom moom moom maam sëñ Gawane sëñ tubaab moo ko moo ko sàkk woon mu ñëw bi mu ñëwee dañoo wax ne bi mu nee jëb bu maam Cheikh Anta loxo daf ko ne Cheikh mu ne ko Mbàkke Cheikh mu ne ko Mbàkke mu ne ko sag dikk ji barab bii de Rasulullah moo ko wax mu ne ko Mbàkke mu ne ko xam nga lu fi Rasulullah du wuta bu la neexee ma wax ma wax ak moom mu wax ak yow maam Cheikh Anta ne ko Mbàkke waxal ak moom ma wax ak yow xam nga loolu lu mu doon da koy wan ne ni ma gëmee ne gis bu ma ko ma ko wanee ma gis ko noonu laa gëmee ne boo ma ko waxee ma gëm ma ko loolu la mu ne ko xam nga lu fi doon wut daf na wax ne man rasulullaay naa yor sa batin te Cheikh Anta yor sa zahir yor sa zahir mooy lépp lu mës a sàkku moom Cheikhul Khadim sëñ maam sëñ Gawane mooy financé looloo tam ay firnde dana ci ñëw yoo xam ne day wane ne rek fa mu waroon a féete moom ma nga foon te itam loolu wax na am na lu ma leen ci junju léegi ne leen lislaam moom saa su ne kilifa mënu fee ñàkk ku bëgg àgg daa am kilifa ku bëgg àgg te amoo kilifaat danga nga bëgg a àgg waaye doo àgg ndax wal mu'minuuna wal mu'minaat ba'duhum awliyaa'u ba'din mm-hmm. jullit yi suñ boroom dafa wax ne ñenn ñi ñooy kilifa yi ñu ci des te mu ne doo mas a dégg mukk doo mas a fekk mukk fu ab yéefér fu ko jullit di jàppee muy ak kilifaam mu mel ne kon boo ko seetee ni ko Cheikh Sidel Mokhtar defee naka jekk noonu lay doxe moom lislaam mooy góor day jàpp ci góor góor jàpp ci góor góor jàpp ci góor rek te loolu boo seetee góor yàlla yu jëkk Yasidul Bustami yi mooy Tayfur ca góor yàlla yi la bokk sëriñam daf ko jox tur yàlla wala dog bu muy liggéey ngir man ngir mu ne ko saa su ne guddeeg guddeeg bëccëg rek de ko dóor guddeeg bëccëg de ko sikkar guddeeg bëccëg mu di ko sikkar ba yàgg mu di ko sikkar benn bis ba yàgg mu yëg ne ruuxam su jóot na bi ruuxam su jóotee mu ne léegi naa su jóot xaar sama ruux ngir balaa siggi ma siggi mu siggi mu mu mu mu su jóot su jóot ne meng rek mu xaar xaar ruux ruux ne meng rek ba yàgg mu nguur jëm ci sëriñam ne ko ah sëriñ ah man roox moom bu sujootee kañ lay jóg mu ne ko waaye sujut na mu ne ko waaw mu ne ko waaye sujut na mu ne ko waaw mu ne ko kon kon de roox bu sujootee dootu dootu ba ilaa mi loolu ban bind nga ci jël mooy roox bu xasee sujootal seytaane jeex na ndax waroon day wax ne lu lu lu rey mbuum dee ca kon mu mel ne boo seetee waxtaan wépp diggante Serigne Touba ak maam Cheikh Anta Cheikh Sidil Mokhtar mën nañ koo tënk ci ñeenti bay di Cheikhul di wax ne ku ko meloo yaay murid mooy sifaatu saadiqil murid di bixtisaar arbaatun nazamtuha xam faqtira ila axiri Serigne Touba dafa wax ne ab murid képp kuy murid ngir sa murid wér ci ñeenti sart yi rek ca nga mën a tënk soo demee ba tënku ci nag xamal ne fa danga teg sa tànk fa góor yàlla lay teg seen tànk mooy ba ci jëkk mooy bëgg sab sëriñ ba yëmale woo koog dara ba ca tegu jëfandikoo ay ndigalam bàyyi ay teram ba ca tegu mooy nga jébbalu ci moom jébbal ko sa bopp ba noppi bàyyi ko boppam ba ca tegu mooy nga bañ a am ak tànn ci lum lay defloo wala lum lay tere loolu nag la sëriñ bi ne képp ku ni mel nga jëf nga def nga doxe noonu yi xam nga ne teg nga sa tànk fa góor yàlla yi tegoon seen tànk ah nañ seet nag Cheikh Sidil Muxtaar nu mu ci doxe ndax am nañu ay firnde yu leer ci ay leetar yoo xam ne Sëriñ Tuubaa moo ko bind ci loxol boppam ngir nangul maam Cheikh ak taalibe bi war ko ne murid saalih wax ko ci yu bare bare bare bare bare te danañ ci indi ay firnde ndax boo seetee mu mahabbatu Cheikh mooy bëgg sab sëriñ ba yëmale woo kook dara boo seetee ci histoire ba ko maam Cheikh Anta di jëflanteeg Cheikhul Khadim booba ci zahir juróom benni at juróom-ñaari kon mel mel na ne man nañ ne bëgg gu mu bëgg sëñ Tuubaa moom da koo ñëwaale addina maam Cheikh Sidil Muxtaar te itam am na lu wér ci ne am na ku ma nettali nee ma sëñ Moustapha Ceytu nee na ko sëñ Gaawaan nee na ko ba may topp Cheikhul Khadim gis kum defar ba ma ñee ko taxul ma topp kon li dal kon yonent Serigne Touba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jëlal Cheikh Cheikh Sidil Mokhtar Serigne tubaa ndax yone ndax sëriñ tubaa dafa wax ne tagg gi may tagg yonent bi day dara xiiruma ci lu bëgg ji mujj rek daani ila matxi nabi xubbu dati bëgg gi ma bëgg yonent bi moo tax rek may tagg jëmm ji kon Cheikh Sidil Mokhtar rek naka jekk bëgg gu mu bëgg sëñ sëñ Tuubaa loolu moom da koo ñëwaale ci àddina te li ciy firnde mooy bañ ko njëkkee joxe ca Bargny mu jàngal Alxuraan te Mamour Anta Sali yeb yebal ko tedd ki ne ko dafa bëgg mu ñëw mu dem laaj ko ma sëriñ ni du ko joxe xam naa xel mu neex maag gaaw gaaw mokkal ak xam nga am na qualité yoo xam bu ni ab taalibe melee ab sëriñam da koy bëgg du ko dina ko teqali ko moom waaye ba mu ko wanee ginnaaw fa saasa ku ku euh, euh, maam Cheikh Anta daal topp daal daw topp topp ku baax ki juróom-ñaari at juróom-benn at jàpp juróom-ñaari at kon loolu bokk na ci li nga xam ne dana tegtali ak bëgg te booba juróom-ñaari at la am waaw euh, bokk na ci tam loo xam ne sëñ Moussa Ka moo ko ta moo ko moo ko way xalangu gum doon xalangu ci ci euh, ci lay bi te booba dafa ànd ak sëñ Touba yor satala gi sëñ bi bëgg xuus ci lay bi mu tëdd ci lay bi ngir bañ sëñ bi tax ngir bañ sëñ bi lay bi agsi ci moom loolu boo ko seetee ci saxaaba yi du la jaaxal ndax da gis ne dana niru ak ndaanukat waaye day day day wane ne rek kii ma bëgg yëbali ma ko dara ndax saxaaba yi bu bu bu xeex masaan tàkk dangay gis ne bu flèche waree ñëw ci yonent bi day am benn saxaabi yu bu jógee fële dékk ko ak dundam ne na dal ci kawam sulhu Hudaybiya gis nañu ne yonent bi bu masaan jàpp saxaaba yi dañuy jëkkanti njàppit mi di ko naan kon loolu loolu kon li Cheikh Abdoul Ahad Mbacké radiyallahu taala mu daan wax ne sëriñ tubaa nee na day lay saxaaba yi defaloon yonent bi képp ku ma ko defal dinaa la defal la Rasulullaay defaloon saxaaba yi kon moom la defal waa këram itam ñëw gi mu ñëw Daaru Salaam bi muy ñëw moom moo ma ànd te booba fukki at ak juróom fukki at ak juróom benn te itam jamono yi muy ànd ak Serigne Touba booba ànd ak Serigne Touba yóbbu boobu ku yàlla dimbali rek yaa mën a ànd ak Serigne Touba ndax booba ànd ak sëñ tubaa xam ngeen nu mu mel mi ngi mel ni diggante Touba ak tey ji ku fi doon woote lu dul Serigne nu muy mel kenn du ci ànd ak yow ba maam Cheikh Anta di ànd ak sëñ Touba noonu la ñu fi meloon ndax booba yii xewut yooyu yu mat bàyyi xel la bi ñuy sanc Daaru Salaam itam giléem gi nga xam ne moo doon nandal nit ñi newoon fii maam Cheikh Anta moo ko jëndan ci ci ci ci wërsëgam loolu lépp kon day wane ne yàgg naa liggéeyal Serigne tubaa dajale gim daan dajale xaalis itam dara waralu ko dul bëgg a liggéeyal Serigne Touba daana bay daana commerce yu bari daana ci dugg ci yu bare bare bare bari loolu lépp liggéeyal Serigne Touba ko waral ah, ba am-am bi sax ñu bari da leen daana leen jaaxal waaye nag boo seetloo da nga xam ne du warulaa jaaxal ndax koo xam ne bi ko Serigne Touba di jox dëkk bi booba sëriñ tubaa mi ngi tollu ci sancu Touba. te booba boole na ko juróom-ñeent fukki taalibe ak juróom-ñeent ah te taalibe yooyu kenn ku nekk la la war sa digganteeg sa euh, sëñ gaawaan sa sa kenn ku ne la war diggante sëriñ akub taalibe ñu ko doon seqanteeg sëñ gaawaan ba noppi muy liggéey di ci boole ba noppi ba ñëpp yokkit ba ba ñëpp di yokkootam moom it ma nga yokk kon kay foog mu yor lu kenn yorul waaw loolu la di nag am na yu bari yu ñu ciy wax waaye yooyu lii rek na li noonu rek la demee. ndax euh, Serigne Jili mi keroog mi ngi may nettali ne ma boo demee ca Nantes ca France archive ba nekk foofu boo duggee rek jëmal sa wetu càmmoñ boo demee da nga fa fekk dossier bu maam Cheikh ci ci jëflante gu doon jëflanteeg tubaab yi ci wàllu commerce. ma nee na liir na fa ba gis fa gerte gu bari goo xam ne jamono yooyu réew mi daanaka li fi gerte lu ca bari maam Cheikh da koo jënd. ba gerte gi manqué mu tubaab yi soxla ko mu jaay leen ko ci njëg bu cher nga xam ne xaalis bañ ko doon jox ci ay malet ak yi ak yi wëlis lañ ko doon def boo demee daa fekk foofu da da nga fa fekk loolu. ak taalube gu mu amoon goo xam ne dañoo wax ne ñëw na benn bis ci ku tedd gi naan ko ñaas ma jaay ma bañ xam ne du ma sa doomi bàyyi kon mu mel ne toppe na yonent bi toppe na sëriñ tubaa ni Touba ne Aboubacar toppe woon sëriñ tubaa ak osmaan Aliou ak Omar. waaw kenn ku nekk te te itam sama sëriñ daf ma daan wax ne ma képp koy woote nga di yónnente waa ngay war liiw li feeg amagoo ñeenti taalibi yii xamal ne tàkk boobu waaye boo ko amee xamal ne tàkk nga di dootoo fay mooy lan mooy taalibi bu am xam-xam ak taalibi bu am wërsëg ak taalibe bu nangoo liggéey ak taalibe bu révolutionnaire taalibe bu am bu xam-xam mooy dimbali sëñ bi ci ci jàmm yi taalibe bi nga xamante ni bii nag dafa am wërsëg moom fu nar a fu lëf nar a tàgge rek moo koy tàggandi ci fasaasa ki nga xamante ni bii tam moo nangoo liggéey kooku mënta ñàkk mm. ndax mooy takk baas yi ah ki nga xamante ni bii mooy bañkat bi nag kooku moom mooy ki nga xam ne bu ñu tuddee sëñ bi léegi rek mu joxe sa taabal ji taw <laughs> lii leen ñu takk yóbbu kooku mën na ñàkk bu ko defee yooyu di ay bunt yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la ah ci maam Cheikh Anta daan remplir yooyu yooyu bunt yëpp ndax bokk na ci li gën a am solo ñu bàyyi ko xel mooy sañcu Serigne Touba Mbacke Bawol ji bi nga xam ne Serigne ñëw na Mbakke am benn bis moo am ay gan booba am Cheikh Anta booba lu mag ci zahir booba ay fukki at juróom fukki at juróom benn daanaka weesul foofu waaye booba jamono ji dafa dëgër ndax xam nga ne loolu buñ la ko waxee du la jaaxal ndax Serigne nee na nëbbatu ko maan ba daal lii xam la ak aradu dan moo maa ngi leen di lay biiri ci coono bu metti boo xam ne daj naa ko lu jiitu ma gis ngërëmal yàlla ñoo sax kon jamono jooju dafa dëgër sëñ bi maam Cheikh dem ci néeg way juróom Soxna Anta Ndiaye jël fa genn fetal boo xam ne Soxna Anta Ndiaye maa ngi ko doon ne woon ca Ibrahima Awañang baayam dem ànd ak ak ànd ak pël dem tiib wala kayal jaayi fetal nga jënd ci aw nag indi ko Sëriñ Tuubaa ba mu ñëwee dañoo wax ne ba ñu feesee gàtt ba ba noppi maam Cheikh Cheikh Amadou Cheikh Amadou Bamba daf ne dëpp leen der bi ci suuf si bañ ko dëppee mu ne dippar ci leen ko mu ñu dippar ci ko mu ne leen képp koo xamante ni bi xamoo suuf si tut feppi suuf li ma feppi suuf yi nga xam ne moo taq ci der bii xamoo li ma def ci Cheikh Anta mii Cheikh Anta mii faw xam ne bépp képp kuy maasam mu daal di ne lépp lu ngeen gis ci cheikh mii fukk la benn bi rek laa laa feeñal ci àddina juróom-ñeent yaa ngi koy xaar kon yooyu yu mat a bàyyi xel la sañ cab Tuubaa xam ngeen ne euh, soxna buri di way juru sëñ Mudu Maamun moom la fa sëñ bi yóbboon moo moo ko doon toggal di toggal dongo yi mooy ki njëkk a wàcc liggéey ci tuubaa sëñ Touba ci ndigalam mu indi la ko Mbàkke Bawol moo euh, bu ko defee sëriñ bi ci biir sañc sanc sanc sanc sanc Touba boobu ci la ko joxe Darou Salaam am na ay yoon waag yëpp lépp ñëpp jërut jërut jóg jërut uh, leeralaat mu mel ne kon li li li boole diggante sëriñ tubaa ak maam Cheikh Anta du jëmmi bokk baay gi rek ndax maam Cheikh Anta naka jekk day faxas loolu ndax xam ngeen ne pas-pas mooy li am solo ndax sëriñ Touba daawut laaj ku la jur li xew léegi. foo ne jàll ñu ne koy bàyyi loolu sëñ Tuubaa daw ko wax sëñ li mu daan wax bu ne bu nit ne jàll mu ne ku ko ko yar ku ko yar rek la doon laaj kon maam Cheikh Anta moom naka jekk diggante bu mu bu ànd ak sëñ Tuubaa ci bokku mbokku bàyyi looloo moom naka jekk da koy faxas ndax pas-pas rek am solo bu ko defee euh, ndax euh, xam ngeen ne diwa jur diwa jur diw mu jur diw loolu nit ñi ko xam waaye yàlla moo doxin rek ko ñun loolu nag moom la Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul daan jëflante diggante ak rakkam jooju di di maam Cheikh it boo seetee am na lu ma wax ca jamono yële weesu ma répété ci ku toll mu mel nii ndax koo xam ne da ngaa gimmee fi sëriñ bi sëriñ bi yaral la boppam loolu ku ku mel ne moom di rakki sëriñ Tuubaa amu ko ndax fadlu xususiyu dafa am loo xam ne yàlla lay soob mu jox ko nit comme ni nga xam ne sëriñ Tuubaa comme ni ma leen ko waxee rek lu benn kaas kenn képp ne ko dégg naan di xool say morom waaye nag dafa am loo xam ne kenn ko ne ak lan ca am waaye nag rakki sëriñ Tuubaa yi dañoo am seen nag loo xam ne dañ ko moom moomal seen bopp ndax ku dul da nga gimmee fi sëriñ bi ñu yore feneen mbaa nga ya mbaa nga mbaa nga gimmee feneen ñu yore la fi sëriñ bi waaye nag gimmee fi sëriñ bi sëriñ bi yore la boppam moom rek ci sëriñ bi rek kon yooyu dafa mat a bàyyi xel moo tax euh, sëriñ Afe Mbakke dañoo wax ne benn bi sëriñ Tuubaa nee na ko afii mu ne ko mbakki mu ne ko defe naa Mamour suñu way juróom Mamour Anta Sali bu dellu waatoon jamono yéen ñëpp mën na leen di tuddee mu ne ko mbàkke man di tudd na la sa wàll waaw kon ci biir loolu waxtaan wi ak li ñu waxtaanagul te ngeen jégal ko ci maam Cheikh lan lañ ci mën a jëlee liñ ci mën a jële mooy xam ne pas-pas rek am solo te itam fuqahaa yëpp dañoo d'accord ci ne nit ku ne benn ci yaar yi rek lay mën a nekk foo ko fekk. day nekk koy topp mbaa mu nekk koy moy maanaam ne ci lu la war mbaa nga ne ci lu la war te benn bu ci ne nit bu ca nekkee am na lu ko ca yàlla tànnal loo xam ne moo gën ci moom bu fekkee ne dangaa nekk ci mooy maana bi maana yi siqat ilayhi wala subat subbat yi lu ci ne dafa am lu la cee la digal bu fekkee ne dangaa nekk ci topp yàlla loolu mooy xéwal boobaa danga ko koo war a sant ci tudd ko mooy waqul alhamdulillah comme ni ko alquran waxe sant ko ci wax mais sant nga sant ko ci jëf sant ko ci jëf mooy alquran leeral na ko mooy fi mu ne amalu ala daawuda shukran wa qalil min ibadi shakur dam ne yéen ala daawuda de yéen waa kër daawuda yéen seen seenu cant jëf lay doon waaye du wax kese sant nag sant ci jëf nag mi ngi tàmbulee ci fas yéenee def li yàlla digle ci ni mu ko diglee sa kemtalaay kattan ak lim tere nga bàyyi ko ci na ca na ko na ko yàlla bàyyi na ko yàlla bàyyi loo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ci wane ak ab bind ndax ku ne xam ne daana julli léeg-léeg ba tànkam yi di newi ba sayyidatuna Aïcha ne ko ah yow yonent looy daw bay daanu ci ma ko mën a nit le yow koo xam ne alquran nee na yaxfiru laka allahu ma taqaddam min dambika wa ma taaxar yàlla jéggal na la sa bàkkaar yu jëkk ak sa bàkkaar yu mujj yow looy dawati mu ne ko afala akuna abdan shakur xanaa du ma nekk jaam bu war a sant yàlla kon sant yàlla noonu lañ koy defee waaye duñ n'importe quel sant rek mooy sant lu mën a doon rek sunu borom dalaa wan ni ko war a sant bu dee tamit tam neqmatan subbat alayhi nga xam ne dangaa nekk ci mooy lan la yàlla sant mooy nga daal di daw jëm ci moom ndax alquran dafa wax ne ah yaa ibadiya allazina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillahi laa yaghfiru zunuba jamii'an innahu ghafurur rahim yéen sama jaam ñi nga xam ne dangeen a yàq seen bopp ba yaakaar ne kenn soxlaatu leen man ba tey soxla naa leen benn condition rek laa leen jox mooy ñëw leen rek te li ngeen doon bàyyi li ngeen doon ngeen bàyyi bu ko defee man lu ma jàppoon dinaa ko bàyyi su ko defee yooyu yu ma ta bàyyi xel la ngi ñaan mel ne ne euh, heure ba heure baa ngi nam tuddi li xaj ci lii ab bind rek la mu jóge ci maam Cheikh ñu jàpp ko te soññoo ci te xam ne mooy ki nga xam ne moo njëkk a jébbalu moo njëkk a séddu li sëñ Tuubaa njëkk a fonk mooy Daaru moom la ko jox muy jëmm joo xam ne lépp luy teraanga ci yoonu murit moo ko njëkk am loolu day wane li alquran nan wa saabiquuna saabiquuna ulayka almuqarrabuuna wal ak dina taboo fi saatil usri ba muy topp ku tedd ki boobu ko topp ku tedd ki day loolu moo ko may lii kon nag nanu góor jamono ji nag lu bari ñu bari leen tooñ mooy dañuy nax seen bopp ndax sa bopp na góor ndax yàgg yàgg yàgg yàgg ki ngay naxanteel moom dara du ko wàññi dara ku dem ba amatoo positif it mënoo wàññi yàlla dara kon ñi ngi ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel jotaay yi ndax barke rek am solo lu mu ne ñu xam ko lu mu ñu xam te yàlla defal nu ak yëkkati ko ci biir ak ci biti ak yëkkati ko nag ni ma koy faral di firee rek fekk yëkkati ko moom yàtt rek la te genn ci am nit ki buy jéem a yëkkati boppam te yàlla yëkkatiwu ko kooku bu sonnee toog ndax kenn mënta dem te jàppale wuñu la nit ñi nag suñu la yëkkatee bu sa xel nekk nekk ci dëkk ci kaw ngir nit a baaxuwul aj moroomam ba noppi dëkk ci teen dañu lay wàccee wala ñu yëg fekk si la nit ñi suñu borom nag bu lay yëkkatee boo bëggee di gis suuf tibal yóbbaale ndax nii rek nga deeti def waaye doodoo def nii kon ñu teg foofu suñu baaraam ba beneen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf dañ ko jëlee kii nee Serigne Touba kazalika Serigne Touba kazalika moom itam lim jàngale lépp noonu lañ ko jëlee ci mag ñi ak si fii mu ëcc Serigne Gaawaan ñu bàyyi xel ni nitu xam-xam la woon nitu diine la woon waaye boo xam da ko tubee woon taalibe bu bëgg Serigne Touba ñu ko tubee woon diineem jooju ak ngorom boobu téerin yoo xam ni tolloog ñaar téeméer leetar Serigne Touba bind ko kooku day mel ni kon sëriñ bi te leetar bu mu ko bind bu nekk rek day wax maanaam ay masayaam ay ngëneelam ak baax bu sëriñ Gaawaan baax ak daadikaat am solo bu am solo ci liggéey bi Serigne Touba liggéey Serigne ak yonent bi sallallahu alayhi wa noonu it la Serigne Gaawaan amee woon jëm ju mel ni alxaaji yi ma yorofaan mi ngi koy waxtaanee. Sëñ Tuubaa nee na bi ñu woy yonent bi day mel ni daa am ko wax ni ko yonent bi loo ko mën tagg tagg tagg te ànd woo saxaaba ya ko daroon sa tagg day mel ni matul kadalika daa bokk ci waaju baaxam ay maanaam mbiram saa yoo ko dee waxtaanee te waxoo luñ defar day mel ni ak mbaaxam day manqué sëriñ Gawane boo ko dee waxtaanee te indiwoo ku mel ni alxaaji Mourou Ndiaye Diop kas Lamine Touré si ma faat Touré ñoom ak may alxaaji mi war a faat ñii nga wax seen gaawaan te indi mu produire demee ni mbaa ko seen gaawaan yaa ngi koy jox yaa kon am solo lool sëti seen gaawaan yi ñu ko mel ni jëm ñu tedd ji mu alxaaji mi war a faat tuddee ko bis bi ngir gën a misaal ak leeral liggéey maam Cheikh Anta liggéeyal yàlla ci nit yàlla liggéey baax na waaye liggéey bi yàlla gën a ci liggéey mooy kuy liggéey jaam yàlla bi mën ak seen borom mën ak doomu aadama yi ah, moo tax sëñ gaawaan yàlla may ko kàngam yu bari yàlla may ko kàngam yu bari yoo xam ni dañoo baax ca baaxu démb ga daal di ñëwaat baaxaat ci baax ga sëñ Tuubaa indi muy yoon mi doon woote ak lu baax li mu doon woote muy al tariqa al muridiya Serigne Gawane yàlla may ko ci élément yoo xam ni ñun ñëpp ko tudd rek day mel ni danga naan ci mënu woon a ñàkk mel nii ak mbaaxam mënu woon a ñàkk a fiché nii bokk na ci ñooñu nag alxaaji Mayoro Fall mi nga xam ni Serigne Moussa Ka mi bind Serigne Touba ak ku xam sa waay ku ne moo la xamal kooka bind ci alxaaji ci mbind moomu ci la ñuy waxtaanee waxtaan wi incha allahu sëriñ Mbàkke Bousso mi nga xam ni alimul allaama wax na ay axlaaq al mahmuuda li alxaaji Mayoro di wax ma mbaax gi mu baax ak diine gu mu am diine ak wér gu mu ak sàmm gu sàmm ak dëdd gu mu dëdd adduna ci lépp loo xam ni amalu ko njariñ kooku yaakaar naa bu waxee ci ku mel nii nga daal di day mel ni jaar nañu xam kooku mooy kan. wa kadalika Serigne Mbaye Jaxate ridwanullahi alayhim ci way yoo xam ni lateewul lenn ci kilifa rek ñoo ko yor wax na ci jikkoy alxaaji Mayoro Fall joo xam ni moom la àndee woon ak Serigne Gaawaan jikko joo xam ni day mel ni kii remplir na jë dëgg dëgg islam gi mu doon muslim wa kadalika mot li na mbooleem jëm yi yoon li nga xam ni mooy yoonu murit jikko yi mu war a àndal ak tari mu war a àndal loolu moo ñu may ñu dugg kon ci alxaaji Mayoro Fall ban dëkk la gane àdduna ma ngi sant sëriñ Jiili mu sëñ Mouhamadou Mamoun ndax ni gën si daa wala lu ko jiitu ci lañ àndoon ak moom dem fee ci mbijjëm côté Ndar ñu fa ko bi benn juma yoo xam ne waa kër alxaaji Mayoro Fall ñoo ko tabax doon ma def loo bayaan ba ci laa xamee dëgg dëgg histoire boo xoolee dëkk boobee noonu kon day mel ni Euh, jataay bi luñ ci am rek dañ koy sante kooku di ñaan yàlla defoo ko tawfeex tey si ndax bu ñu fa dem woon dañ a xam dëgg dëgg wàcc waaye alxaj mooy rek si ngaawaan euh, mu ganee dëkk boobu muy bi jëm ne côté Ndar diggante moom Ndar dañuy wax taqriban vingt-deux kilomètres la wala vingt kilomètres mu nekk dëkk boo xam ne islam dafaa yàgg a jolle ci islam yu njëkk a jël xam ni booba fu mu tàkk tàkk na ci dëkk boobu ci daara ak ñoo xam ne dañoo nekk ci xam-xam ak nitu diine nekk ci yoonu tariixa alxaadiriya tariixa boobu nga xam ni ñu baree bare baree bare ci yoon yi wala ci Sénégal jaar nañ sëñ sax boo xoolee day mel ni wérdu xaadir ma na ko yor ak mbaax yàgg naa jolli foofu ci dëkk boobu doon gën na leeralaat kadalika sëñ Gawane mboolem ñi mu àndal foo leen xool de càmbar leen fañ bokk ay kilifa la doon ci ngaawaan bu jëlee nitam ci mbedd ba am solo daa mat ba yàlla may ko mat goo xam ni kum ànd rek soo xoolee démbam day set loolu daa bokk ci jaloorey waaju baax ci ngaawaan yàlla may na ko ku mel noonu boo demee Daaru Xadim Alxaaji Mudu Njaay boo demee katalikat ngeen ñeneen kenn ku nekk fa mu nekk rek day nekk kilifa goo xam ni démb kilifa la kilifa la woon tey mu nekkat kilifa mu ñaari ñaari daraja mu gane àdduna ci dëkk boobu 1886 ñu ni ko daal yaakaar moom sëñ Fallou ñoo bokk même année bu ñu gënee àdduna danañ ñëw ci relation ak sëriñ Fallou incha allah ci la gënee àdduna ci dëkk boobu ci ñaari waajur yoo xam ni sëriñ Gaawaan xamoon na mu baax ak seen bëgg lu baax muy sëriñ Tafsir Njaga Kumba Lawbe Fall kooku Tafsir foo dégg ñu wax ko rek bu njëkk daawu ne maanaam ku yem ku ëmm xam-xam foo ko dégg ñu wax ko rek Tafsir mooy koo xam ni géej gi ne bay traduire alxuraan. kooku ma nekkoon wajuru góoru alxaaji ma yor faa ko bu ñu nee la ko nitu xam-xam lañu woon nitu diine lañu woon da nga mën a xam fiir tur tur yi day firi loolu muy tafsir gi tafsir njaga ku mbalaw be faal mu nekk wajuróom bu góor kadalikaat wajuróom bu jigéen nekk soxna Roqaya Faal sëñ Gaawaan xamoon ci ñoom ñaar ñuy ak mbaax ba nangoo jël seen doom jooju kadalika boole ko ci mission bi muy liggéey Sëriñ Tuubaa mu ànd moom liggéey boobu Eh, bëgg gum bëgg lu baax moom tafsir soxna Roqaya si ngaawaan bokk na ci segg gi mu segg alxaaji Mayoro ànd ak moom bokk na ci critères yooyu ci la ko tànnee bi alxaaji Mayoro demee ba àgg ci jamonoy jàng ci dëkk boobu muy mbijjëm foofu loolu jàngi alxuraanu karim dafa jàng yàlla may ko mu teel a géeju ci xam-xam wala boog teel a neex xel loolu ci alxuraan bi muy jàng di jàng di jàng bu yàgg jamono jooju tubaab bi boobu moo chronique woon Sénégal kii la gis neexaayu xel meeg yooy di di raasaadu ci biir daara yi ñu war a jàng tubaab ci lañ ko jëlee moom tabb ko mu war a dem ndar jàngi fa français xam-xam bi wala ba xel mi ak ni mu yewoo kii bu jàngee tubaab dana mën a gaaw génn ci mbir mi ci la ko tubaab bi jëlee yóbbu ko ndar pour mu jàng ci école de sautage bi nekk ndar ci la tolloon jàngee ndax tubaab yi léeg-léegi maanaam bu njëkk dañ daan xool ñu gën a neex xel ak ñi bu ñu jàngoon dañuy jàng génn ci loolu ko. maanaam tànnee ci aas yooyu mu dem ndar jàngi fa français ñu xam ak maanaam xelam mu ñaw aku jàngam waaye ak sàmmam ak ñàkk bari problème élève boo xam buy jàng maanaam amul yenn maam problème te musta redoublé moo tax ñu tabboon ko ni ñu tànnoon ñu war a dem ndar jàngi français ngir mën a téye seen làkk woowu noonu ci la ko gaa yi tànnee ci dëkk boobu yóbbu ko Ndar mu jàngit bi nga xam dëkk boobu jege na lool boo xoolee dëkk yi jëmi bi mu àggee jàngit la mu demoon ci daara gi la fa wanewaat la mu demoon ci daara bi mu nekkoon ci biir mbijëm la fa wanewaat di fa jàng-njàng moo xam ni day ànd ak maanaam not baax ci mboolem examen yi ñu def kadalika bi mu jàngee ba nga xam ni nag am na wàccuwaay ci mu jàng am na ci daara ji bu kawe noonu lañ commencé jël ko muy jàngale jafe woon nag jamono jooju maam dem jàng tubaab bay jàngale yàlla may ne ko ñawam moom jàng ko jiir bu gàtt ñu mujj nomee ko maanaam affecté ko muy jàngale ginnaaw bi ñu ko formé ba xam-xam jàngam ak daraja yi dëgg dëgg xelam ni maanaam màccee ci wàllu jàng muy jàngale ndar boobu dafa jàngale foofu muy jàngee nag di ak jàngale fii la ko sëriñ bu ndumbee Mbàkke ak maam Cheikh Ibra Fall maam Cheikh Fall bi Sëriñ Tuubaa sañ ci Daaru Salaam fi la wàcc dem Ndar moom sëñ Gaawaan ma daje Ndar ak sëñ Mandumbe ki la maam Cheikh Ibra ak sëñ Mandumbe waxee ne ko alxaaji ma yoro wala boog ma yoro yow ni nga yeewoo ci jàngum tubaab mi ak ni la yàlla mayee jikko ju baax ji te njàngum tubaab mi yóbbul boo xoolee sa njàngu diine yow Cheikh rek moo nga war a àndal daa nga mën liggéey yaa moom liggéey bu sell ci ko njëkk a tegtal sëñ Gaawaan mooy maam Cheikh Ibra Fall dugal ne ko sëñ ñoom bu njëkk dañuy gis nit xam ni ca kee la baax ñu boole koo kooka bi ñu gisee sëñ ma yoroo ci ni ko yàlla mayee ci wàllu xam-xam ak wàllu suñu seex mi dana wax léegi wàllu maanaam rafetaay suñu seex laa ko déggee léegi wàllu rafetaay boobu noonu bu ko suñu tëggaat li mu ko li ko jëlee xam-xam bi ko seex wala ñoom seedeel ak boo xoolee sell gi ak maam yéwe gi waaye sëñ gaawaan boole ci dalika taar bi ndax am na sëñ bu sant Njaay boo xam ne su mbokk la si ngaawaan jël na ko ci maanaam tànnin woo xam ni rafetaay bi tax mu tànn ko mas na koo xam ne ko dama bëgg nga ree mu ree mu comparé ko kenn ne ko yaa gën a rafet kii tànn gi rafet gi nga rafet moo tax ma tànn la si ngaan boo ko ne yi mu tànnee sëñ ma yoro booba xam-xam bi Cheikh Ibra Fall gis ci ñoom ak yeewu geeg maam dal gi ak bëgg maanaam lu baax geeg maam xam li muy jàng ak mën a wax ak tubaab yi ci la ko Cheikh Ibra Cheikh ma dumbee zalika ba sëñ gaaw sëñ gaan bi mu ñëwee dane ko ku la bu ne ko Cheikh Ibrahima Cheikh ci mën lu ma boole ci yow nee na yow pour man yow laa mën a defar suñu gaaw ne waxin dëgg yow man rek maa la attan ne ko waxin dëgg yow man rek man mën nga mën a nekkal daal di ànd ak moom ci àndin woo xam ni biir ndar mu fay jàngale di liggéeyanti mbooleem su yi suñ gaawam doon bëgg ñu koy liir ak bindim doon bindante boo xoolee tubaab bi te booba jamono ji Sëriñ Tuubaa moo ngi Gabon 1999 soriwul booba 1899 soriwul jamono jooju noonu muy jàngale biir ndar moom sëñ ma yoro di jàppale sëriñ gaawaan ci mbooleem ay bind yoo xam daa war a dox diggante sëriñ bi jarak sëriñ gaawaan sëñ ma yoro moo doon bind loolu su jaxanta wax na léegi ni lépp bari lu ñuy am wax ci yoon yi yoon yi am ko léegi li ko war li ko may yoon yi mooy xalaat sëriñ gaawaan ak mbindum sëñ ma yoro su jaxanta wax na ko léegi ñu leen jëriñoowaat ci moom bare lu am ci yoon yi yoo xam ne ñëpp a ngi koy ndamoo di ko tiitaroo ci yoon yi te xalaat sëriñ gaawalo mu jox sëñ ma yorom bi ñu ko ci xelimaam ci la gaa yi jëriñoo ba léegi nii demee li yàgg naa liggéeyal liggéeyal maanaam diine ji rawatina yoonu murid bi nga xamee ni xam nañ ñoruk sëñ ma yoro ñoom tubaab sëñ gaawaan mi nga xam tubaab dañ ko ragaloon ci wàllu ñaw boole ci ñu xam sëñ gaawaan di liggéeyante sëñ ma yoroo ko liggéeyante ki lay waxee ne dañoo war a jël sëñ ma yoroo jëm ko affecté Nioro jëm ko affecté ñooro ngir lan mu mën a sori sëriñ gaawaan ndax kii bu yàggee jege sëriñ gaawaan man naam léegi jaf xam ndax lii sëriñ gaawaan li nit lu bare bare bare moom moo koy yaxal di ko bind di ko maanaam ah, jàllale fu mu war a jàll sëriñ gaawaan demee Gabon 1899 avant muy ñëw rek tubaab bi jëlee lañ sëñ ma yoroon dara yóbbu ko ñëw war a ngir lan mu sori sëriñ gaawaan boobu mën a xam li gaal yi rek si wàllu sëñ beeg yooyu ngir xam ne kii ku ko bàyyi mën naa liggéeyante mboolem ni nga war a liggéeyante ba sëñ bi mbiram léegi mu gën a leer euh, bi nga xam ne sëñ gaawaan jógee na Gabon nag bi mu ñëwee seet sëñ Tuubaa bi mu ñëwee da ko laaj bu jaaree da koo laaj ne ko yóbbu nañ ko Nioro ngir maanaam fa lay jàngale léegi waaye sëñ gaawaan xam na ni tubaab bi dañoo xam ne ñaw gi ak yeewu gi ak jàppale mu koy jàppale moo waral rek boo xoolee ngi daal koy bëgg ko sori la fii ngir mu sori sëriñ gaawaan di di di jokkoo ak moom di bindanteeg moom ko daal di suñu moro di ko jàppale yu baree bare bëri ba yàgg ñu xam ne lii tën naa dakk ñu ne kon nañ ko jëlee ñooro yóbbu ko Revolta muy Burkina Faso sama yoro mi daal faaw ngi defee ko génnee ko Sénégal boobu ngir boobu mucc Sëñ Tuubaa ak Sëñ Gaawaan ci xalaatam yi rafet yooyu noonu Sëñ Gaawaan daal di ko wax ne kon ngay démissionné laa bëgg a génnee fii yóbbu la Burkina Faso da bàyyi kon bàyyi te yem ci Sëñ danaa defar lu ëpp maanaam li ñu daan fay ci wàllu salaire ak yooyu suñu yoroo daal dégg ndigal bàyyi njàngale ma mooy ki njëkk a démissionné ci wàllu maanaam ki xam bokk kii bind ñiy bind wax nañu ki ki njëkk a ngir maanaam Sëñ Tuubaa mooy Sëñ Mayoro Fall daane kon nañ na naa bàyyi njàngale ma te ànd ak Sëriñ di ko liggéeyal Sëriñ Gaawaan ne ko boo liggéey fay gi Sëñ fay mu ëpp li la gaa mu ànd ak moom daal di jógee foofu ñëw Njaaréem boobu suñu tubaab mu ngi Njaaréem mu jógee foofu Gabon bi mu ñëwee Njaaréem ànd ak Serigne Gaawaan ci Gaawaan lu sëriñ Gaawaan di bind rek Serigne Mayoro moo koy bind lu muy liggéenti lu nekk rek boo xoolee moo koy moo koy moo koy liggéenti c'est-à-dire muy def xidma boo xam ni suñ suñ Gaawaan fu mu amee najaax rek mooy fu mu amee ndam ci mbir rek Serigne Mayoro ci ginnaawam bu njëkk dañuy wax ne Serigne Touba rapport yi daan ñëw ci moom nekk rapport yi arabe français la woon yooyu sëñ ma yor moo fa naan liggéenti sëñ gaawaan di ko bind loo mu koy bind ba lépp loo xam archive bind na ko sëñ mbir lu ci baree bare ba sëñ ma yor mooy ki ko daan gidde sëñ gaawaan jox ko ci ndigal mu joué rôle bu am solo ci wàllu liggéey bi sëñ gaawaan du liggéey sëñ Tuubaa boo ko daal di ginnaaw loolu nag si Moussa Ka wax na ni Mayoro Fall mooy magi secrétaire ya mooy jàng journal yi di wax xibaar ya tam si ngaawaan lépp loo xam ni wax na ci wax wax na ci suñu tubaab ci loo xam ni arab la wax jëm rek sëñ yoro moo koy jàngal moo koy bindal moo koy leeral ñu wax ak chat ndax wax na ko sax ci biir kër gi tubaab yi bu bu njëkk daan daan nañ tekki loolu ñu baree bari waaye sëñ ma yoro bi mu ñëwee tekki na mi doon tekki si ngaawaan kii diggante ak tubaab bi ñoom dañoo dem ba yéemu ci xam ni kii xel ñu am waaw lu tax maanaam mu bëgg a tànn bàyyi njàngale mi ànd ak kii ak di ko yàlla maye xam-xam ak ni mu yeewoo ci adduna xam ne ko si Gaawaan kii mu àndal bu ñu leen bàyyi rek mun nañoo liggéeyante loo xam ni du leen arrangé ñoom euh, ginnaaw bi nga xamee loolu loolu loolu am na euh, ba Sëñ Tuubaa jógee géej ba ñëw euh, sëñ ma yoro Sëñ Gaawaan wax ko ne ko de kon dañoo bëgg nga gën a fetliwaat laxasaay bi ndax war nañ ko yóbbu boo xoolee ci jëmmi maanaam Casablanca Séméro daal di gëstu lijjanti ba xam la fa xew ci wàllu jafe-jafe mu lijjanti war bindal sëñ gaawaan ni dañ koo defee rek yóbbu sëñ bi jëmi Mauritanie xibaar ko ko jàngat ba sëñ gaawaan tànn waxtaan ak tubaab ba yóbbu suñ tubaab gànnaar yóbbu ñu Casablanca Séméro moo ko def ndax moo doon liir journaux yi di xam tubaab fi nga war a yóbbu sëñ tubaab ak foofa dem doyee waar ñu xam ni gànnaar moo tane. si ma yoro ànd ak sëñ gaawaan ci mbind moo xam sëñ nga yoro moo ko doon bind si ma yoro ci wàllu tubaab ba sëñ gaawaan mujj d'accord tubaab yi yóbbu sëñ tubaab euh, jëmmi gànnaar lépp sëñ tubaab di bu demul ak Casablanca gannaaw yàlla si ma yoro kooku day mel ni kon même bi sëñ tubaab nekk mu ngi doon liggéey waaye bi mu ñibbisee géej gi war a dox doxub jéeri ji fu sëñ gaawaan amee na jaax rek lam bind lépp boo xoolee nee na sëñ ma yoro moo ko doon bindal ngir di ko liiral li xew ak nan la war a xew ak fu war a suñu yor moo ko doon def mujj gi sax yëmul ki nekk taw Sëñ Gaawaan daa mujj nekkoon avocat Sëñ Gaawaan Sëñ Gaawaan léeg-léeg yi teg ko tuuma woo ko tribunal yu baree baree ba Sëñ Gaawaan dana wuy ji tribunal lu baree bari saa yu àggee daa mujj Sëñ Mayoro day mujj nekk moom avocat bi xam mooy défendre Sëñ Gaawaan ba Sëñ Gaawaan mucc yooyu noonu ci zahir kooku day mel ni liggéeyam boo xoolee yi ëppoon na nekku taalibe waaye da daa nekkoon di liggéey liggéey boo xam Sëñ Gaawaan mission bi mu doon dox ku ko jàppale ba mu am dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ni mu ko amee Euh, sëñ ma yoroon te dalika loxoom génn ci waaye ñi daal di wax ni moom tubaab bi wax ni moom sëñ ma yoroon dafa nekk koo xam ne agent chakara la war nañ ko war di mutaabaa bi diqa war nañ koy bàyyi xel bu baax a baax ngir xelam ak xalaatam ñoom ñaar ñi kenn ki rek na jamono bi ñu booloo ñoom ñaar day gën day waar ñu leen di bàyyi xel baax a baax rawatina nag ma yoroon mi nga xam ne mooy bind day wax sëñ gaawan yu baree baree bare ñu ndax moom ku amul dogg la te ku dëggu la ku am sekkare la ku dal la boole ci waaye dañun moom seen ma yoro def nii ànd sëriñ gaawaan ba sëñ boo xoolee même bu ñu dellu ginnaaw bi mu jógee géej jaar na ci jaar boo xam daa dox na doxub wax nañ yàggaay boobu yàgg gi mu yàgg toobe dañoo lankoon wax ni sëñ Tuubaa mu dem Daaru Salaam gisee Cheikh xam ni booba sëñ ma yoro daa bind ministère maanaam de colonie bi nekk France xam na ko ne ko tere nañ sëñ mu àgg Daaru Salaam te liñ ci teg pour bañ a àgg du dara bu àggee dara du xew lépp jàmm lay doon ginnaaw yàlla ne nañ kii dara géey wala bindum sëñ may ma yoroo ki lañ bàyyee sëñ Tuubaa mu jógee fi mu jaaru ñoom ndan gi ñu bëgg a màggal waaye moom yoo xam ni Tuubaa yi mënuñu ko may mu ñëw seet si gaaw si gaaw yoo xam dafa yeewu te maanaam dafa gëm sëñ Tuubaa Tuubaa bi Tuubaa bi lañ wax kon duñ ko bàyyi mu dem Daaru Salaam waaye nee si mbindum sëñ ma yoroo moom ko bind ministère de colonie bi nekk France ci lañ mayee sëñ Touba mu door a ñëw Daaru Salaam kon ngan gi bu amee kon màggal gi que daanaka sama yore euh, ñu ne ko dañ la ko may dañ la may dañ la may mu ñëw waaye nag ci condition yoo xam ni dañuy yónni ay ay ay agence cekkar xam day ñëw toog nee nañ keroog suñu yoroon ne leen bu ñu ñëwee duñ gis leen lu baax bi gars yi takk der yi ñëwee ca ngan nga keroog ñoom taalibe ñoo bokk nekk ñu gis si gaawante ay xar yeeg gileem yeeg nag yeeg yooyu. ñu xam ne lañ yaakaaroon ak li am bokkul ñu mujj toog bokkul sëriñoo ñu leen di maam décoré ñoom ko di leen neexal ñu nekk ñu xamee ni kon kii jàmm lu ñu ci moom nekk waaye nekk dañu doon foog yaakaar ne bu ñëwee Darou euh, benn benn benn benn benn xeex amul wax ki la màggal Darou Salaam boobu ci lañ mayee sëriñ si ñu am léegi comme ni nga def waaye avant loolu moo ñu benn sëriñ mu daje fukki nit. di di toog day yaakaar bu toogee dañuy def benn maanaam maanaam ay pexe yooyu noonu kon loolu lépp bokkal ak idée boo xam ne lu rëdd yàlla may na ko sëriñ ma yoroo ci la ci euh, maanaam xalaat sëñ ni ko dalekaat noonu la meloon ci wàll woowu noonu di def noonu di def noonu ba sëriñ gaawaan li ko sëñ bàkk so séeréer ci ak mbaax ba sëñ bay ak magi sëñ gaawaan yooyu noonu sëñ gaawaan mas naa toog ba yàgg ci biir taaxam moomu noonu li ñu bëgg wax bàyyi suñu faral di moo ko nekk suñu tàkkoon wala suñu wóor noonu fa ci biir génnee benn yàllaa bi baraaya daal koy sànni si mu yoroon na ko li ma tudd mooy seere sa ragal yàlla rek biñ àndee yàgg na loolu te mosoo def lenn loo xam ni du lu baax la mosoo wor ci wax yi mosoo ma wax lu amul te mosoo xool sa bopp ci mbir mi lépp rek man ngay àndal ni Sëñ Tuubaa ne moom laa la bëgg a seedalee xam ne maam yow ko ragal yàlla nga sëñ Kaan mu ngay tagg dëgg ko ci ak man bin tubaab ak baax wala boog ak maa ja waaye da ko jàppale ci qualité boo xam ne ku jëriñu moo la jëriñ muy ragal yàlla taqwa wax nañu moom la moom moom la ko moom la ko te moom ko dalalee moom la ko boog maam seedeel nga ko ragal yàlla nga mosoo dugg leen loo war dugg waaye mosoo maa dugal kii leen loo xam ni du noona loo dugg rek Sëñ Tuubaa tax nga def nga def ko ànd koog man kon loolu boobu day mel ni kon yàlla may joo xam ni dëggu googu noonu moo tax maanaam yàlla defal ko mu am suñu gaawaan benn étape boo xam ne yéemi na bi Sëñ Tuubaa nekkee ci jéeri ji ba jéeri ji jeex mën naa ko Sëñ Tuubaa wuyu ji boroomam suñu gaawaan yow ko dama bëgg nga dem nag rapport yi nga bindoon Sëñ Tuubaa yooyu miraas Sëñ Tuubaa bi nga teewee ko moom la Sëñ Tuubaa délégué woon dem teewee ni miraas Sëñ Tuubaa njaareem miraas bi ñu miraas Sëñ Tuubaa njaareem sama yoro moo ko teewaloon Sëriñ Gaawaan indi ñëw na indi benn lettre boo xam dañu lii de xool leen ko si Moussa Moussa xool ko ne ko yow mooy CRS ki lañ sukkandiku ba mirage mirage ñëpp boo xam loo xam moo ko yoroon bind ko diggante tubaab yi ak ak seen tubaab kooku day mel maanaam jëwriñ joo xam ni biñ tubaab nekkee daganaat war a jàll ndarit foofu si ma yorom fa woon di ànd ak tubaab yi di bind te da lekk biir ndar même naa bi suñ tubaab jógee Daaru Salaam ja Daaru mën naa bi muy wax mbaaxaan suñ tubaab sa yóne da koy wax saa yu ne si gaaw si ma yore mooy bind mooy liggéeyante mbir mi bëgg laa lekk ngir ma am daf daral yëf yi bëgg yëf yi gën a nooy gën a mën a mën a jàll bi Sëñ Tuubaa làqoo ci zaahir nag Sëñ Gaawaan yónni ko pour mu teewee miraasum sëriñ sëriñ Sëñ Tuubaa bi bi mu fa jógee si Gaawaan daal di waaj ndar bi ñu waaj ndar it moom dañu woon mënut a ñàkk dem ndax moom ba sëñ bi nekkee ci géej moo doon moo def li ñu doon def bi mu nekkee jiire ji moo doon def maanaam ay démarches di kon nag biir aj màkk gi mu ma yore mun ci ñàkk xam ne wax nañ ni bi suñ gaawaan yónni na ko ci banque fi ñu jëlee xaalis mu yor kartaabal daal dem bi mu ñëw fekk na suñ gaawaan bato bi daal départ suñ ndox tuuti ba romb maanaam gore dañ ne ah ma yore ndekkee maa ko yónni woon ñu gaal gi ñu ne ni ko tourné si moom Fall moom mooy wax na ma li gën a doy waar sax départ pare dëppaat jamono jooju xam nga jëmmi jëmmi tubaab yi ñoo leen ci voyage maam dëppaat loolu mus koo dégg ab si a ñàkk a dem ndax maa ko yónni woon dañoo départ ba fii ñu départ woon ñu xaar ko indi kattan daal dugg an si ngaan daal demaat màkk koo gannaawal ci dara rajokat mosu koo ñàkk boole ci mbir ñu demee màkkaat lu ñu fay def ci wàllu weccet ak wàllu bind ba li ñu bindoon marché ay kasaalika suñu gaawaan ak yi marché ay kasaalika suñu yoroon moo doon moo doon def loolu moom bi suñu gaawaan jógee ca aj mag ba ñëw nag tubaab bi daal koy attaqué waat pour wàllu yoonu Ségu bi sëñ ma yoroon moom daa mujjoon tubaab yi di ko contrôler bu dégg bëccëg ah naa am nañ li wax tubaab fan nahar di ko bàyyi xel baax a baax suñu gaawaan demee Ségu 1935 sëñ ma yoroon moo fi des di bind ndeg tubaab yi di yónnee dem ak dem ak ñëw. ba kazalika boo xoolee lu baree bare naroon naa ñaaw waaye ginnaaw yàlla ci mbindam ci la rafetee ci sëñ gaawaan ni mu tëlee dikkaatoo yooyu ba yàgg ko fa yooyu noonu ci wàllu zahir bi ginnaaw bi nag bi nga xamee ni sëñ gaawaan ne ko damaa bëgg nag ngay dëkkee fii fu jege poste fekkee njaaram lañ jëw sa kër di jege poste moo tax si ma yoro amul kër Daaru Salaam amul kër Touba sëñ gaawaan moo ko ne dina jege poste bi lu war a envoyé nga envoyé li ñu war a jël nga ko ngir maanaam mën xam dëgg dëgg dëgg dëgg pexe tubaab yi ak ni ñuy doxalee ak suñu moo tax mu nekkoon Mbàkke gi la nekk dëkku woon dëkkoom bi Daaru Salaam waaye mu ànd ak Sëriñ ci àndin woowu àndin bu yéeme ba Sëriñ Gaawaan wuy ji boroomam mu teewee indi maanaam dossier yëpp bañ miraas ko waaye teewul nag daa yokkaat allah saayam dara jaayante sëñ Mudu Maamu ànd ak moom gën a féetle ak allah saayam bu ba ci si nelawee mille 941 bi si ngaawaan nelawee ci la jaayante ak sëñ Mourou Mamoun moom sëñ mu yoroo mel ni ku musta liggéey di liggéey liggéey boo xam ne yéeme na ba sëñ Mourou Mamoun boloog sëñ Fallou 1945 ne ko kat sëñ Mourou Moustapha nelaw na sëñ Fallou dafa aaje woo ku mel ni yow sëñ Fallou Mbacke dafa aaje woo ku mel ni yow daal ni ma sëñ ma yoroo boole naa sëñ Fallou ki gi nga liggéeyal ko ci liggéey mu war a liggéey sëriñ ma yoroo ànd ak sëñ Fallou di yi di bind mbind yi ba ni la formé sax alaj dara daam daraay moom suñ fàllu boo xool si ma yoro moo ko formé ba mu dem ba mën a taxaw taxawaay si ma yoro defal ko suñ fàllu lu si ma yoro liggéey bi ànd ak suñ ci wàllu lu ñuy bind rek ak lu ñuy def ci wàllu woowu rek nu ko defal suñ gaawaan nu ko defal suñ fàllu ci xilaaf ak Cheikh Ahmadou Khadim kadaalika dañu di liggéey Serigne Fallou ba sëriñ Fallou dem ba sëñ Mayoro dem ba commencé jëm mag mu formé la ko alaaj daam daraame mii nekk daajëkk njaay dem indi ko formé ko ba man li mu doon waaye tegul kero bi nga xamante si nii kero bi nga xamante si nii kero bi nga xamante si nii sëñ Fallou gërëm na ko sëñ Mayoro ci mbaaxam ak sàmmoom ak gadaalika boo xoolee ragal yàlla gi ragal yàlla daa joxe Sëñ Fallu appareil yi mu ko dénkoon mooy téléphone yi mu doon woote yëpp ak lépp ne ko comme daam dara mi ñëw na lii nga liggéey loolu léegi mën naa ko Sëñ Fallu na ko jëlal yow jëru ngay jëlal dara lii ko moom waaye ca mbaaxam da koo delewaat bagage yëpp ngir yaakaar ne Sëñ Fallu du ko doon liggéey loolu ko joxaat ay bagage loolu boo ko ak sàmm ak taqwa mun ta wees loolu euh, moo tax maanaam mu nekkoon koo xam dafa yéeme loolu Sëñ Fallu wax na ci moom ci mbiram loo xam liggéey bi ko doon liggéeyal must koo def leen loo xam ni war ko ko def te lépp jaar la fa mu war a jaar bu mujj am ni mu am biñ demee maanaam ba nga xamante si nii sëñ Fallou làqu na ko dalika euh, ci mille neuf cent soixante neuf wala soixante huit ko dalika si moom daal làqu mille neuf cent soixante neuf dalika liggéeyam ba mille neuf cent soixante ci la wuyu ji boromam bisub Kazu Rajab ki la gënee àdduna bisub sëñ Fallou sëñ Fallou ci la wuyu jee boromam ndax ñun ñaar ñi nekkoon ñoo xam ni euh, yéeme woon na loolu. ñi ne mag ñi daal di wax ne moom daa bëggoon saa yu suñu gàmm saana toog da ko joxoon cër ba kaana yuridul xalwa daa bëggoon ab beru zawaay yaay suñu gàmm bu toogee ci néeg ci koñ ba lay daal laan toog moom doo dégg kàddoom du wax sëñ gaawaan mujj di ko wax ne ko koo xam di ko di ko yéem koo xam daal du wax lu mu wax lu mu wax rek njariñ la du toog jotaay maanaam mooy ba nga dégg kàddoom lu ñu jëf moo koy jëf suñu gaawaan seedeel ko seede boobu ci maanaam ni mu daan dalee daan toog ci koñ koñ mu néeg baa koñu maanaam fu mu toog te kazalika maam doo dégg kàddoom lu may loo xam ni suñu gaan da koo liggéey mu liggéey ko mu woon problème yu baree baree bare dal di liggéey ak a euh, a wàcc suñu gaan waxoon ne musta wax lu am njariñ kazalika saa yi suñu gaan masaana teew nit ñi teew daawul daawul boo xoolee am lenn loo xam da koy wax doo dégg kàddoom ngir daa fa fonk si gaawaan amoon taalibe waaye amoon jikko joo xam ne ku bëgg diine ba keroog bi ñu bëgg wuyu borom si mudu roqee la wax ne ko dama bëgg nga wut ñoo xam ne bu ma fi jógee mu xoolam barab ci Darou Salaam foo xam ni fa may def ndax sama dem lépp mu jot ndax yi baax yooyu bu ñu yàlla ba yàlla ba yàlla fay leen bu ñu bëgg a dem faaw yàlla leen li ñuy wax maanaam bisaara moo xam ci seen dem waay cest à la ñëw toog ne ko dama bëgg nga xoola ma ñoo xam ne ñoo may waajalal fii ngir xam naan léegi ma si suñ gaawaan sama sang ba man ko yàlla may mu am jikko yu baax yoo xam ni c'est-à-dire que maam baax baax yi woo xam ni bàyyi fa njaboot goo xam ni que noonu lañu baaxee si Ibrahima Fall kadalika Serigne Tako Fall kadalika Serigne Cheikh Anta Fall Serigne Mawane Fall Serigne Fall Fall ak njaboot jigéen ñëpp yàlla may ko kenn ku nekk rek jaar fa mu war a jaar ba kenn musta xam ñoom lu dul lu baax suñ Cheikh moo ko wax ñoom ñëpp boo xool te leen ci yoon woo xam ne am nañ li doon nee ci seen bàyyi bu tedd boobu kon démb ji kon démb ju mel noonu kon bu ko sëñ gaawaan waxee ci ay maanaam jikko sëñ Mbàkke Bousso nekk ku baax wax ci moom jikko ju mel nii ne même sax bu sëñ Tuubaa wootewul woon day bokk ca kàngam yi tax fa mu bokkoon ak fa mu nekkoon kenn yóbbu leen woon ci wàllu diine boo demee ci Mauritanie amoon nañ gàdd boo xam ni mu jëm lañ koy wooye ñoom seen seen cosaan foofu la bokkoon bokkoon na ci gàddaal ngir yàgguñ yàgg ci diine yàgguñ yàgg maam ci mbaax bokkuñ tarix xaadiriya waaye mu ñëw Sëñ Tuubaa nag alal Sëriñ Gaawaan ci liggéey boo xam ni folam Sëñ Gaawaan dañ ko fa te Gaawaan alxaaji Moodu Njaay Jóob Mouhamadou Lamine Touré daan nañ bindi araab mel ni fóore waaye nee na si Moussa Kane lépp lu jëm ci wàllu dossier arabe français moom te mu ëppoon ci dossier Sëñ Gaawaan si ma yor moo ko doon liggéey Sëñ Gaawaan Sëñ Gaawaan mujjoon wax ni ma liggéey bi muy liggéey Sëñ Tuubaa bu ci amee wenn fepp moom ma yor de ma yor faaw mu jël ci wàllam ndax liggéey bi li liggéey ci lu bari loo xam ni kazalika yàlla rek la koy seereel kon Sëñ Gaawaan ci maanaam maandoom ak baax gum baaxoon ak ni meloon ci wàllu yàlla bëggoon lu baax nekkoon ku sell ba suñu tubaab dénk lu baree baree bari ñu mel ni rek la manaam a am ku mel ni rek la mën ak ñu mel ni la mën a ci wàllu maanaam ñi muy àndal kon loolu lañ ciy déggee ni kon dañ ciy war a royee taalibe yi roy ci suñu yorofaal di nga dem nekk suñu gaawaan ni mu yàggee def ak moom boo xoolee at yi baree baree bari te musta wax loo xam ru ko wax suñ gaawaan nee na ko bind yi ngay bind li nga def lépp ci rapport mosoo bind loo xam ni deelul yoon li nga wax lépp dëgg la dalika musa wax leen loo xam ne bëgg ma rek moo tax waaye li nga wax lépp li nga bind lépp ku ko wéri bi mu nekk dëgg ne ko xam naa ko ragal yàlla nga même bu du woon maanaam li ànd sax ragal yàlla nga mën na la cee fay kooku ni kon ku mel noonu bu jamono indiwaat ko maanaam dana gën a yee feeñal sagub suñ gaawaan dana gën a feeñal ko dalika ni meloon ci wàllu maanaam yàlla ak ñu daan yaree ba kàngam mi génneeg nekk ñoo xam ni masa bii oon fiddu jaaleñ làmp yoo xam ci biir lëndam yoo xam ni fuñ jaar leeral ko yal na yàlla fayal ñu ko yokku tax tax ñu barkeem dëggal ak njabootam ci wàllu islam gën leen dëggal Sëñ Tuubaa ba bëgg am lépp ñu am ko ci yoonu Sëñ Tuubaa yi Sëñ wi ñu ngi jégg lu ci dëgg ñun lan lu ci gazalikat boo xoolee waaw kon wax nañu continuer ba si ba si kanam ah, waaw xam naa day mel nii dañuy bëgg a xaar seen seexante te ñëw mun ak si sax daanaka kon day mel nii bi sëñ Tuubaa muy jee boroomam sëñ Gaana muy ji boroomam toogaane fi 33 cent yoo xam ni lam doon liggéeyal sëñ Tuubaa ak sëñ Gaawaan moom doon liggéeyal sëñ Fallu sëñ Moodu Maamun mos ta wàcc te bu doon kaneenam man nga ne comme sëñ Gaawaan dem na si bu maamum dem rek wala boog sëñ Tuubaa dem sëñ Gaawaan dem mën naa wàcc sama laxasaay waaye teewul daa gën a feddiwaat ak laxasaayam ba amul lenn loo xam ni lenn loo xam ni sëñ Fallu def na ko ci jamono jooju ko sëñ moo yoro nekkalee ci wetam lu ma sëñ yoroom sëñ ma yoroom moo ko lijjanti waaye mu nekk nit koo xam ni fu mu masaana toog en tant li mu jàng dëgg war wàllu tubaab li muy jàng jàng jàng jàng da ngay mel ni jàngul dara dañu wax ne boo gisee jotaay bi day mel ni jàngul dara ci dal gi mu dal ak baax gi mu baax ak téye gi mu téye làmmiñam ak it di jàng alxuraan xasaayid saa yu liggéey gis ne ci wàllu mbindam moomee mu ngi indi xam-xamam boobu yàlla baaxee kon liggéey leen Serigne Touba ci xam-xamam zalika boo xoolee ci dooleem ak ci xelam ba yoon yi boo xoolee fu mu àgg rek fu mu àgg rek idée wala xalaat suñ mu yoroo àggale na ko Serigne Cheikh waxoon na ko léegi wax nañ ko léegi mu ni bari na loo xam ne yoroo waa ngi tiitaroo ci wàllu yu baree bari te xalaat suñ mu yoroo suñ ak xalimay sëñ bi may rafaal loolu am solo la waaye que noonu la ko sëñ Moussa Ka waxee daal ni maam la mu daan bi la sëñ gaawaan ak di ko di ko di ko nettali ci xista ay xibaar moo waral sëñ gaawaan xam jamono ba lu mu liggéey sëñ Tuubaa mu ngi ko lijjanti sëñ gaawaan booba li ma xamoon sëñ Tuubaa ak Tuubaa bi ñoo xamoon seen pexe léeg-léeg sax bu neex jëree neexal sëñ gaawaan daal di neexal sëñ ma yoroon moo ko wax ne ko am na rapport bu jóg boo xam jar naa def dara sëñ gaawaan daal di génnee dara neexal ngir gaa yi bàyyi sëñ Tuubaa ba ñuy laaj boo xoolee hôpital bi nekk Njaaréem tubaab bi dañoo laajoon ndimbal ñëpp joxe nekk neuf cent quatre-vingt-cinq francs jamono jooju sama yoroo xam nga ko suñ gaawaan suñ gaawaan daal joxe mu nekk boo xoolee deux mille cinq cent jamono jooju ci liñ bi nekk boo xoolee jëmi Njaaréem jamono jooju ko sama yoroo day mel ni fépp suñ gaawaan teg tànkam rek lu am ci lu baax te day rek moom sama yoroo ñoo ko ànd ci jamono jooju ba yàlla fay ko fay woo xam ni boo gisee ginnaawam rek boo xoolee nga xam ne liggéey na yàlla waaye yàlla nax ko di fay gi fay doog dëgg ngi fay yal na yàlla fayal ñu ko defal ñu tawfiq ak taysiir àggale yéene yëpp ñu àggale ak njabootum seen yéene kese gi Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa axiru da'waana alhamdulillahi rabbil aalamiin